du conseil départemental de Kaolack, mesdames, messieurs les membres du conseil départemental de Kaolack, distingués invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser à tous et à toutes mes salutations. Salutations républicaines, salutations fraternelles, salutations chaleureuses. Euh, je voudrais ensuite, mesdames, messieurs, les conseillers départementaux, vous féliciter très vivement de l'honneur que vous avez désormais de conduire les affaires locales au niveau du département de Kaolan. C'est un honneur, c'est un prestige qui vous échoit à l'issue des dernières élections territoriales, je veux dire départementales et municipales. Euh, je tiens à vous accompagner. Plein succès dans votre précieuse mission. Euh, cela dit, vous connaissez l'objet de cette réunion. que je déclare ouverte. C'est la première réunion donc du conseil départemental de Kaolan. Il est bien de préciser que cette ouverture de la réunion marque en fait l'expiration des pouvoirs du Conseil sortant conduit jusqu'ici par notre frère, notre concitoyen, Monsieur Baba Ndiaye, dont je salue avec insistance la présence parmi nous. Le premier point de la réunion, vous le savez, c'est l'installation du président du conseil départemental de Kaulak, M. Euh, monsieur Ahmed Youssouf Benjeloun. installation qui va se faire suivant un protocole dont nous serons tout à l'heure les témoins. Après quoi, nous en viendrons au second point de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'élection du bureau les membres du bureau. Pour la première partie de la réunion, vous le savez, je tiens la présidence de la réunion. Mais juste après l'installation de M. Ahmed Youssouf Benjeloun dans ses fonctions de président, je vais lui passer le témoin c'est lui-même qui va présider donc euh, l'élection en vue. Je voudrais préciser que si lui va assurer la présidence, le secrétariat sera tenu par le plus jeune conseiller ou la plus jeune conseillère. Elle sera secrétaire de séance ou il sera secrétaire de séance. Euh, quand je dis elle, ce pas un lapsus. Si je ne m'abuse, la plus jeune conseillère s'appelle Adi Fatou Diop. Adi Fatou est dans la salle. Hein? Adi Fatou est née le 22 décembre 2000. Je voudrais vérifier s'il n'y a pas de conseiller plus jeune qu'elle. Si c'est le cas, non, je ne pense pas. Donc, euh, elle sera euh, la secrétaire de séance. Elle pourrait être assistée, euh, si le besoin se fait sentir, par quelqu'un de votre choix par le secrétaire général qui connaît déjà comment on dresse le PV de la séance. Euh, Madame Adifatou je voudrais même lui faire l'honneur de nous rejoindre au présidium la liste des membres tout à l'heure pour vérifier le quorum. Elle va procéder à l'appel hein, et nous ferons le pointage pour voir effectivement si le quorum est atteint. Je crois qu'il est largement atteint, mais il faudra le vérifier. Euh, tout à l'heure, vous le ferez quand je donnerai le temps. Euh, pour l'élection, elle va concerner les vice-présidents et les secrétaires. Je crois que nous avons, vous aurez à élire quatre vice-présidents et trois euh, secrétaires. Euh, je veux rappeler euh, les règles du jeu pour que nul n'en ignore. c'est en fait quelques principes qu'il faudra respecter au cours de ces élections. Euh, c'est que d'abord, euh, celui qui voudra remplir ses fonctions doit savoir lire et écrire. Ensuite, l'élection se fera au scrutin secret et à la majorité absolue. Cela veut dire, mesdames, messieurs, que chacun de vous devra avoir la prudence et l'élégance de réserver ses propres choix à lui-même, de ne pas les porter à la connaissance du public sous quelque forme que ce soit. En principe aussi, l'élection se fait à la majorité absolue. Maintenant, s'il n'y a pas de majorité absolue au premier tour, il y a des dispositions qui seront appliquées. Euh, un autre point de vigilance c'est qu'en vertu de la loi 2010-11 du 28 mai 2010 et du décret 2011-819 du 6 juin 2011, il faudra respecter la règle de parité absolue homme-femme dans votre bureau. Le président étant un homme, une femme devrait suivre et alternativement jusqu'à l'épuisement du nombre que vous voulez élire. C'est une disposition légale et réglementaire que vous n'avez pas intérêt à violer. kon nak eh, mbok yi lima jotta wax noonu rek mom la bëgg teunk ma ngi nuyu ki nga xam mom lañuy wax Ahmed Yusuf Benjelun, nga xam mom moy président bu conseil départemental bu di nuyu ñi nga xam ne ñoom lay seqal liggéey bi góor ak jigéen mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci conseil départemental bi euh, nuyu waale Baba Ndiaye nga xam ne tey jii yan wi yanam la woon mu war a yenni ko mook ñi mu àndaloon jébbal ko ñi nga xam ne tey ji askan wi ñoom lañu jublu kon nag yéen ñépp góor jigéen mag ak ndaw dama leen bëgg njukkal ndax itam sas la cër la boo xam ne askan bi moo leen ko séddee te mooy suñu yeewoo mënuñu kenn ku nekk mu defar dëkk bi di ko il boppam ñu tànn kon ñenn ci biir jox leen yan wi ñu bari bëggoon ko ñu wax ne yéen lañu ci wóoru kóolute googu ku ko am ku ne yayoo nga ñu ndokkeel la wax la ne la yàlla la jikk Euh, ndam ngeen ci bëgg ndam boobu ñuy ñaan sunu boroom mu defal leen ko ba yi askan bi di séentu ngeen mën ko cee taxaw euh, gannaaw loolu daje tey bi ñaari ponk la rekk benn bi mooy kon tey jii ki nga xam ne mooy njiitu pénc mi dañ ko war a jox lenge yi eh, am na ñu ma dégg ñu naan takkal ko xàpp te mooy écharpe bi kon dañ ko war a takkal écharpe am tricolore wane ne daal nag bés ni ki tey jëmm ji moo am cër ak turu président du conseil départemental Euh, loola dafa am nu nu koy defee danaa ci jublul sama bopp ba ba nuy def loola nag kilifteefu jotaay gi man maa ko yor waaye nag su ma ko xësee jox lenge yi ñuy jàll ci tomb ñaareel bi su boobaa nag kilifteefu jotaay gi moom moo ko yore te moom mooy seen biir penc mii nag war ngeen am benn kuréel benn bànqaas bu ñuy wax buro bi nga xam ne gannaaw président dafay am moom ñeenti tofal muy ñeenti vice président waaye itam seeni daje dañuy war lu fa génn di dogal ñu di ko yaxal dangeen di tam tànn itam ci seen biir ñetti fara mbind muy ñetti secrétaire nga xam ne lu fi rote ci kàddu ci dogal ñoom ñoo koy tëral ci këyit mën ko firndeel loola kon ci kilifteefam lay amee Euh, danaa ci dellusi ca gannaaw waaye jotaay bu mel nii bu loola amee ci cër yoon it dafa wax ne ki nga xam ne moom la ay atam gën a néew ci jotaay bi kooka la ñuy sos moom lañuy sas tey luñ fi wax walla ñu dogal ko fi moom moo koy bind ci kayit ba ma xoolee ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci limatu ñi doon sàkku te ñu am ci ndam su ma juumul mooy kii nekk ci suma càmmoñ ñu di ko wax aji faatu jóob yaakaar naa ne daal mooy caatu pénc mi kon cër boobu cëram la ñu ànd ñun ñëpp ñu delloo ko ko euh, soo gisee ma defee ko nii itam damay bëgg su ma xësee jox benn jëlun bant yi rekk lenge yi euh, damay taamu ñàkk jëlaat kàddu ci kaw kaddoom bekkeroog muy yëkkati jotaay bi kon nag su fekkente ne nii pal googu war a am la gannaaw bu ñu xoolee ne lim bi fi war a euh, war a daje pour lii ñu sumb mën a am lim boobu am nañ ko te mooy da ngeen toll ci juróom-ñetti fukki nit yoo xam ne ñooy conseiller conseillers yi yoon dafay bëgg gën jaa néew soo ko defee ñaari xaaj benn xaaj bi te mu toolal teew na fi su ko ëppee nag day gën rek mais bu ko yeesul luñ fi dogal tey wala lu fi am tey rek mën nañ koo saxal mën nañ koo wax wéyal ci wàllu yoon kon bu ma daaneelee balaa ñuy dugg ci loolu moom dana tudd tur yi kenn ku ne ku fi teew rek buñ ca àggee su la su la tuddee sa tur ku dégg turam moo xam ci tubaab moo xam ci wolof nga wane ne maa ngi fi présent mooy maa ngi fi tey góor présente mooy maa ngi fi tey jigéen ku mu neexit ci suñu kàllaama nga ne rek maa ngi fi ndax bu dee yëkkati loxo kese dafay xaw a sori woo mën nañ laa bañ a gis waaye bu ñu déggee baat bi xam ne yow la dina gën a yombal liggéey bi ñu wax nag ne buñ ca àggee ña nga xam ne ñoom ñooy war a doon vis président ak secrétaire yi dañuy sàkku nag mu doon ñoo xam ne gën jaa lu ñu tiim mën nañ ko jàng te itam mën nañoo jël xalima bind seen xalaat bu ñaareel bi mooy bu ñu leen dee tànn du doon tànnu tabb tànnu pal lay doon dañuy def élection ñu ne nag pal googa kenn ku ne booy fal ka nga xam ne moom nga tànn dafa war a nekk kumpa joo xam ne doo ko weer fii kenn warta mën a wax ne diw mii kat diw la sànnil xobam noonu la ko yoon bëggee euh, ba ca des mooy ci wàllu yoon tey jii ci suñu réew dafa am lenn nag ci ay kuréel ak i mbootaay ak i pénc dañu wax ne dafay wane wane ne góor ak jigéen dañuy nawlente ci yanu yan looloo tax ñu ne bureau bi moom suñu àggee ci di ko fal benn sarta ngi bu tegee boo xam ne kenn waru ko xët walla ku ko xëtit am na ay topp yu nekk ca gannaaw mooy ne dañuy def góor def jigéen def góor def jigéen ba lim bi ñu war a fal mat wax naa léegi ana yan sart ñoo saxal loolu kon nag loolu yooyu kàddu lañ doon laytaaye jotaay bi ma wax nag ubbi googu ba mu amee rek daje bu jëkk bi bu amee ba ñu ubbi ko mën nañ jàpp ne ñi fi nekkoon yore mbir yi yenn nekku nañ voilà seen sañ-sañ foofu la ko yoon yamale waaye diiru lañ fa nekkaan boobaak boobu dafay mel ne dara soppeekuwul woon ci seeni dogal Euh, donc, euh, j'invite Madame Adifa Goudio à procéder à l'appel des conseillers pour qu'on vérifie ensemble le corps. micro. jégalu daal bu baax xam na dañuy dugg rekk direct ci liste bi euh, première ñuy woo Ahmed Youssouf Benzaloum Ahmed Youssouf Benzaloum deuxième Koro deuxième Boubacar Diagne. Marie Laax. Ah oui, il faut parler. Marem Ture. Demetou. Demetou. Madeleine Paul. Mamadou Faye. Fatou Bintou yet. sampai, sampai Président. mati sise mama dunjay aida jay pak mau ko ma jay xama ko dunjay nay Aku hát hát yếm sen ngàn củ may muna Diouf maam maam bu Kamara Ndeye Dabo Ndeye Dabo Abdoulaye Diallo Ndeye Kumba Sène El Hadji Cheikh Gaye Gadio Kandi Sophie Amar Mouhamadou Moustapha Binta Ndiaye Boku Binta Ndiaye Boku Ousmane Kébé Moussa Moussa Faye El Hadji Abdoul Aziz Sy Jokel Gadiaga Rokhaya Ndiaye Amady Fall Lagi Fatgo. Pak Sulaiman Fat. Adam Ajak. Syekh Ibrahim Dok. Babakar Sokona. Sokna. Jatuh. Jam. Jamon. Muhammadu Aidara. Nay Dramé. Abdoulaye Jo Adam Gueye. Amadu Diallo. Amadu Diallo. Rokhaya Ndiaye. Ibrahim Agiallo. Presente. Farigate John. Felicito. Felicito. até já hora. Thank you. Monsieur le Président, Thank you. Thank you. bon, merci, monsieur Ning. C'est bon Merci beaucoup. Jërëjëf jërëjëf góor gi jërëjëf Monsieur le préfet. Monsieur le préfet du département de Kaolac, Monsieur le président sortant du conseil départemental de Kaolac, chers collègues conseillères et conseillers, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, et qualité, tout protocole respecté, distingués invités, honorables invités de la presse, chers parents et amis, mesdames, messieurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je rends grâce à Allah SWT, sur le prophète Mohammed et sur sa famille, renouvelle mon attachement à ma mère et mon père ici présents, sans oublier mon guide spirituel, Cheikh al-Islam Elhaj Ibrahim Nias, pour m'avoir toujours inspiré et faire rencontrer notre vénère mère, Cheikha Saïda Yanene Je tenais tout d'abord à exprimer mes vies vivement ma profonde gratitude à toute la population de Kaolac, particulièrement à la jeunesse engagée et les femmes déterminées qui m'ont porté à la tête du département de Kaolac pour cette mandature 2022-2027, en plaçant une confiance inestimable à ma modeste personne. Le moment solennel qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement de deux séquences majeures celle de la campagne et celle des élections. Demain, la troisième séquence sera consacrée à l'action. Une action politique et institutionnelle au service de la communauté. C'est à nous alors, mes chers collègues, et à nous seuls, qu'il revient le devoir de dessiner le visage de notre département de demain, mais en prenant le soin de ne pas totalement effacer les traits qui en ont fait sa véritable identité et même sa singularité. Car comme disait l'autre, on ne saurait jamais construire l'avenir sur la négation du passé. C'est pourquoi je voudrais avoir une pensée profonde à l'endroit de mon prédécesseur, M. Baba qui a présidé cette assemblée cette année durant. C'est la raison fondamentale pour laquelle je souhaite en cet instant si solennel le remercier ainsi que toute son équipe. En exprimant ma volonté de le proposer comme président honoraire de cette institution départementale. À partir de la séance d'aujourd'hui, je conjure solennellement au Conseil de ne plus faire de l'idée d'appartenance politique un sujet de mésentente, mais d'en faire au contraire un grand trait d'union autour d'un idéal commun, à savoir le Kaolak de demain que nous voulons nous tous. Désormais, je compte travailler avec tout le monde parce que je crois à l'intelligence collective. Tout au long de cette mission publique, mais soumise au contrôle citoyen, l'humilité, l'intégrité et l'efficacité devront guider nos pas. Au-delà de la consolidation des acquis de l'équipe précédente, l'innovation et la transformation seront au cœur de notre matrice d'intervention. Les défis sont importants, les enjeux exaltants. C'est pourquoi aucun effort ne sera de trop pour donner corps au chantier du renouveau. Quelle que soit l'initiative menée, elle sera articulée aux compétences transférées et dans le respect strict des règles de la gouvernance locale et de notre programme natal département Kaulak. Dans une dynamique solidaire, inclusive et performante, nous allons marcher vers l'essentiel, adossé à une obligation de résultat. Enfin, je veux que le conseil départemental adopte les mesures qui s'imposent et sur lesquelles nous nous sommes engagés auprès des Kaolokoises et Kaolokois. C'est le moment également, pour moi, de rendre un vibrant hommage à mes deux épouses adorées. Je veux nommer Madame Penda Benjeloun et Madame Ndeye Aosher Cheikh Benjeloun, qui m'ont soutenu sans aucune réserve. À mes enfants, mes frères et sœurs, je dis chaleureusement merci pour le soutien permanent et indéfectible. Ma profonde reconnaissance va également à l'endroit de toutes les entités de la grande coalition And Naoulé, Liguey, dirigée par mon frère et ami, monsieur le maire Serigne Mboub. Mention spéciale à mes amis, frères et sœurs en la politique, infatigables militants et sympathisants du mouvement Kaolak Nouvelle Vision. Je ne remercierai jamais assez ce mouvement. Je n'oublierai jamais votre précieux concours. La présence de ma famille professionnelle, représentée par des collègues de travail, m'honore particulièrement. Je, ne saurais colorer mon propos sans remercier et encourager mon principal challenger, Monsieur le directeur général de la Sénélec, Papa Mademba Bitey, qui a su faire preuve de dépassement. Après tout, nous ouvrons tous pour la même cause, à savoir l'émergence de notre cher Kaulak. J'adresse également mes sincères et chaleureux remerciements au président de la République, son Excellence M. Macky sur qui nous comptons hautement pour l'accomplissement aisé de cette mission. Ô combien honorifique et noble, Inch'Allah. Kaolokoise, Kaulokois, nous voulons faire de Kaolak un département écologiquement résilient, économiquement prospère et socialement épanoui. Et pour ce faire, nous ne reculerons devant aucune contrainte. Nous n'aurons peur d'aucun défi nous ne connaîtrons ni doute ni découragement, quels que soient les obstacles qui se présenteront sur notre chemin. Djerejafeti à vous tous d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie. Je vous souhaite plein succès dans vos différents projets. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive le Sénégal, vive la République, vive le département de Kaolandangan. ma tënk ko ci wolof rek dama ne maa ngi nuyu saal bi yëpp salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu di beral nuyoo kilifay jotaay bi ki nga xam ne ne moo fi teewal nguur gi muy monsieur le ak ñum àndal di nuyu tamit suma frère Baba Ndiaye mi nga xam ne ne moom laa wut fii nii Baba Ndiaye su ma ne suma frère il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer Ben rek la qui cité Baba Ndiaye ak suñ taawu kër Cheikh Ben Jeloun ñoom ñoo bokk classe bokk même banc pendant plusieurs années kon bok, Baba bët yu may xoolee Cheikh Ben Jeloun laa koy xoolee te xam naa moom it bët la may sama mon frère maa ngi la jox sa wàccuwaay di nuyu conseil yi fi di nuyu kilifa diine yee kilifa aada yu fi teew yépp waaye tamit di beral nuyu suñu xarit journaliste yi nga xam ne ne ñoo teewee bés bi di wax nag tey bés bu am solo la moo tax ñu ne alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax sant nañ ko santaat nañ ko julli ci yenent bi sallallahu alayhi maa ngi gërëm samay ñaari waajur ndax fu ma gëstoo gis leen yar nañu fu ñu war a yaree waaye tamit ñoo ngi ñuy ba tey ji yàlla nañ fi yàgg lool te wér yàggal fi mboolum kilifa du fàtte ci cant gi cheikh al islam Ibrahima Niass mi nga xam ne ne moom ma mës di inspiré waaye di ko beral cant kii nii may waaj a tudd muy Seyda Yandé na Thiam ak njabootam tey bés bu am solo la comme nu mu la ko waxee waaye bés bii nii dafa am ñaari moment majeur yu ko jur bu ci njëkk mooy jamonoy campagne bi ci tegu mooy jamonoy élection suba nag dañu war a jëm ci beneen moment muy ban moment moment jëf jëf ngir delloo njukkal askan Kaolack ñi nga xam ne ne ñooñu ñu tànn majoritairement jëf ngir changer xarkalam Kaolack jëf ngir gën a dundal yaakaar Kaolack jëf ngir tabax Kaolack gu bees mission boobu nag dañ ci laxasaayoo ñetti mbir incha allah bu ci njëkk mooy OFT ñaareel bi mooy jubal ñetteel bi incha allah xarañte may wax nag ne ci mission boobu noonu pour mu gën ñoo yomb ci ñun dañ ci ànd ak waa Kaolack yépp moo tax maa ngi woo Kaolackoise ak Kaolackois fépp fu ñu ti nekk waaye di jiiteel ci appel bi ñi nga xam ne ne ñoom la ñu bokk ndoo fal fii nii moo xam parti bu ñu munti doon bu ñu munti jóge maa ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne suñ duggee ci conseil départemental ñun ñëpp nañ jël suñu mbubu parti wala mouvement bu ñu bokk teg ko fële sol mbub bi nga xam ne moo tax ñu fal ñu muy mbubu Kaolack nangaan ñun ñëpp ngir ñu defar Kaolack ci biir ñooñu bu ci kalamee dinañ sos bureau bureau boobu maa ngi leen di tàllal loxo pour ñu ànd defar Kaolack duma fàttal ci tàllal loxo bi suma frère Baba Ndiaye mi nga xam ne ne maa ngi proposé assemblée bi incha allah ñu def ko président honoraire institution départementale bii nii ndax monsieur Ndiaye il le mérite ñëpp gis nañ bilan bu rëy bu mu fi def monsieur Ndiaye kon kontaan nañ ci yow te fas yéene nañ ànd ak yow gën a liggéey Kaolack ndàngaan ci tàllal loxo boobu. maa ngi koy euh, duñ ci fàtte képp koo xam ne politicien la te Kaolack ñor la les cadres de Kaolack ñu nekk ci diaspora bi ak dakaar ak fépp maa ngi leen di tàllal loxo waaye du ma fàtte suma frère Pape Demba Bitèye ci loxo yooyu may tàllal pour ñu ànd defar Kaolack nangaan Pape Demba dama koy rendre hommage encouragé ko nag ndax jëf de grandeur bu mu def fii nii ci tàllal loxo yi maa ngi woo kilifa diine ñëpp pour ñu ñaanal ñu suñ mission bii nii ngir ñu changé kawla Ndangaan jox ko xarkal kala mu bees damay terminer rek di remercier remercier tout d'abord suma famille politique maanaam waa ànd nawle ànd liggéey coalition bi nga xam ne ne président Serigne Mboup moo ko jiite

samay soxna nanak, ma ngi len di beral cant ak mande wax deug yalla jappale nañ ma samay dom ma ngi len di sant di len jéggalu ci moment d'absence yi tok nañ lu yag duñ ma doon gis waye li ko jar ko jar lan moko jar muy lak nangam ma ngi len di remercier ñomit di remercier suma famille professionnelle ministère finance qui a commencé ci ablaye Daouda Diallo jaarale ko ci direction générale impôts et Domaine. Euh, euh, ci monsieur Bassirou Samba le directeur général du Faté, sous suma directeur des domaines monsieur Mamboy Diao waye tamit suma chef de bureau monsieur Amadou Diop mi nga xamné ne na fi délégation le kay sante ak personnel bureau des domaines de Ngor di tëj chapitre remerciement yooyu ak suma famille religieuse muy waa kër Baye Niass su ma sante waa kër Baye Niass sant naa mboolum tarixa na Nam Tidiane sant naa mboolum diine gi waaye sant naa képp koo xam ne rek yàlla nga yaakaar ci biir waa kër Baye Niass boobu damay jagleel nag cant waa kër Maam Ibra Fall di ko jaaree ci suma cheikh mu rabbi Seyda Yanene Thiam mbokk Kaolack ñoo ngi leen di wax ne incha allahu rabbi fas yéene nañ changé xar kalamu Kaolack moo tax ñoo ngi sàkku ci yéen ñaan di leen wax ne yal jàmm yàgg Sénégal yal na Kaolack nangaan ëppale ci jàmm boogu noonu waaye ci biir Kaolack maa ngi ñaan département Kaolack bi nga xam ne moom ñu dénk yàlla ko yàlla beral jàmm ak sutura waaye tamit xéwal bu yaatoo yaatu préfet loolu mooy kàddu yi ma bëggoon sànni fii ci jotaay bi di wax ne ñoo ngi rafetlu sa teewaay di la ci taxawaay ba nga am ci élection yi organisation bi jaar na yoon yow tamit yaa xam fa nga bëgg egg yow sa équipe ak gouverneur yal na leen fa yàlla eggale sant nañ leen gërëm nañ leen président de la république nag nee leen ko ñoo ngi koy sant gis nañ taxawaayam di ko wax ne ñoo ngi compter ci moom ngir mission bii nga xam ne ne moom la ñu askan Kaolack dénk ñu mëtale ko incha allahu rabbi kon boog journaliste yi yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm ak waa saal bi jërëjëf wasalaam.